am nañu mbégte ci li ñu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub tey jii nag fas nañu yéene àggale sunuy njàng ci yonent yàlla nooyin wante bala boobu nanu jëkk a nafar li nu jàngoon ci ñaari émission yi weesu ci nooyin ak mbëndu ndox ma ci saar juróom benn ci téereem njaal benn ga gisoon nanu ne coxoru nit rëyoon na lool ci jamonoy nooyin te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañu daan xinte ci seen xol looloo taxoon yàlla dogal indi mëndu ndox ci kaw suuf ngir far bépp bàkkaarkat bu bañ a tuub ay bàkkaaram te wañu ko ci yàlla aji dund ju dëggu ji ca jamono ju yàqu jooja te rëpp kenn nit rekk moo ca neexoon yàlla nit kooka moo doon nooyin nooyin wóolu woon na yàlla te bëgg ko looloo tax am bés yàlla woo nooyin sant ko mu yett gaal gu rëy gi naroon a nekk rawukaay ci moom ak njabootam ak bàyyima yu bare ngir ñu rëcc ci mënu ndox ma ci diirub téeméeri at nooyin di defar gaal ga te di waar nit ñi ngir ñu réccu bëggam kàddug yàlla wante kenn faalewul waareb nooyin kenn gëmul li nooyin doon wax ci mbirum mbëndum ndox ma wara ñëw waaye am bés gaal ga pare waxtu wi yàlla wara àtte ñi jubbadi daldi agsi yàlla doon na muñal tiiñalkat yi diir bu yàgg waaye léegi muñam jeex na naka noonu aji sax ji wax nooyin mu dugg ci biir gaal gi moom ak njabootam te mu jëlaale ci bépp xeetu mala mu sell juróom ñaari góor ak juróom ñaari jigéen ak ñaar ci mala yu sellul yi ñuy bu góor ak bu jigéen noonu nooyin ak njabootam ak mala yi dugg ca gaal ga ni ko ko yàlla sante te mbind mi ne ci kaw loolu aji sax ji daldi ub buntu gaal gi gannaawam yàlla may ubbiloon euh, doom aadama buntu mucc moo doon it ki ko tëjoon bésu yërmande yàlla wéy na bés bi merum yàlla wara feeñ daldi teew noonu mu am ay melax dënnu ak yëngu-yëngu suuf bu mag te taw bu metti wàcc ba def mbëndu ndox mu mag ñépp daw wuti tund yi waaye kenn mënula rëcc ci merum yàlla mu sell mi ñi doon ñaawal nooyin di weddi waxi jàll léegi xam nañu dëgg gi wante fekk na jamonoy mucc wees naka noonu diirub ñeent fukki fan taw bi ak wal mi di gën a bari ba muur tund yi sax waaye gaal gi di tëmb ci kaw ndox mi te mbind mi ne bépp mbindeef bu daan dox ci kaw suuf daldi dee lépp luy dund ci àddina daldi sànku nooyin rekk a des ak ña àndoon ak moom ca gaal ga kon jàng na nu ni yàlla indee mbugal gi mu dige woon képp ku nekkoon ci biti gaal gi sanku lu xewoon nag ak ñi nekkoon ci biir gaal gi ndax yàlla fàtte na nooyin ak njabootam yàlla mi dundal picc asamaan te benn ci ñoom du daanu ci suuf te soobu ko fàttewuleen de yàlla kuy sàmm kóllëre la nanu jàng nag li ñu bind ci téereb njalbeen ga ci saar juróom ñett mbind mi nee booba nag yàlla xalaat ci nooyin ak ci jur gépp ak rabi àll yépp yi nekkoon ak nooyin ci gaal gi noonu yàlla yabal ngelaw mu wol ci kaw suuf ndox yi daldi wàcc te ca fukkeelu fan ba ak juróom ñaar ca juróom ñaareelu weer wa gaal ga daldi teeri ca tundi ararat noonu gis nanu ni yàlla fàttali ko ak ñi nekkoon ak moom ci biir gaal gi mu yebal ngelaw mu wol ci kaw suuf ngir ndox yi wàcc te yàlla jiite gaal ga ba mu teeri ca tund wu kawe wi ñuy wax ararat gannaaw ba nooyin ak njabootam defee at mu tegal ayu bés ci biir gaal gi lu bare ci ndox mi muuroon suuf si wow ci kaw loolu yàlla ne nooyin génnal gaal gi yow ak sa soxna say doom ak seeni jabar noonu nooyin génn gaal ga ànd ak njabootam ak mala yépp bi mu génnee mu defar fa rendikaayu sarax daldi sàkk ci mala yu sell yi ak ci picc yu sell yi jébbal leen borom bi ci rendikaay bi ñuy sarax suñu lakk ndax dégg ngeen li nooyin jëkk a def gannaaw ba mu génnee gaal ga dafa rendi woon ay mala lakk leen ca rendukaay ba mu defaroon yàlla farul woon yoonam wi santaane ne bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am li nu war a xam mooy mbëndum ndox ma yàlla indi woon faroon na lu ëpp ci bàkkaarkat yi wante farul woon reeni bàkkaar yi desoon ci xolu doom aadama looloo tax li ko dale ci jamonoy abel ba ca jamonoy nóoyin képp ku gëmoon yàlla dafa ko doon jébbal ay saraxi mala ni nu ko gise woon sarax yooyu ñoo doon fondement yoonu mucc wi yàlla tëral sarax yi sunuy maam daan rend ca jamono yu jëkk ya ñu ngi doon misaal ramukat bu jub bi naroon a ñëw tuur deretu boppam ngir far boru bàkkaari doomu aadama yi ba nooyin génnee ca gaal ga mu jëkk tuur deretu mala te teg royukaay fa kanami doomam ak i sëtam ngir ñu xam ne yoonu yàlla soppeekuwul maanaam peyug bàkkaar mooy dee te bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am kon mbind mi nee na noonu borom bi xeeñtu xet gu neex ga gillee ca sarax sa te yàlla barkel nooyin ak i doomam ne giir leen te bare ba daj kaw suuf fas naa sama kóllëre sama diggante ak yow ak ñiy wàcc ci yow dootuma far mukk bépp mbindeef ak ndoxum mbënn ndoxum tuufaan dootul faagaagal mukk àddina sépp lii mooy firndeel kóllëre gi ma fas ak yéen ak bépp mbindeef mu ànd ak yéen di kóllëre guy sax jamonooy jamono def naa sama xon ci niir yi muy firndeel kóllëre gi sama diggante ak suuf saa suma muuree àddina ak niir yi te xon gi feeñ ci niir yi dinaa fàttaliku sama kóllëre ak yéen te ndox mi dootul nekk mbënd bay far lépp luy dund amin aaya yi nuy soog a jàng dañu ëmb benn baat bu fi yàlla baamtu juróomi yoon ndax dégg ngeen ko baat boobu mooy kóllëre yàlla kuy sàmm kóllëre la yàlla ku takku la te dafa bëgg woon won takkuteem doomi aadama moo tax ci mbaaxam mu fasoon kóllëreem ak nooyin ak ñiy wàcc ci moom naan dootuma far mukk bépp mbindeef ak ndoxum mbënd moom la yàlla dige woon te yemul woon ci digga ko rekk waaye firndeel na ko bu wóor ci limu def xonam ci niir yi ndax xamoon nga ne xon gu rafet gi nuy gis léeg-léeg ci niir yi gannaaw bu tawee ba noppi mooy màndarga mi wone takkuteg yàlla saa sunu gisee xon ci niir yi yàlla dafa bëgg a fàttali takkuteem guy sax jamonooy jamono yàlla day def xon gi ci niir yi ngir firndeel takkuteem ci limu mu diggane ndox mi dootul nekk na muy far lépp luy dund ci lu wér yàlla kuy sàmm kóllëre la ku takku la ci li des ci tundu nooyi nag am na yeneen mbir yu nu ci bëgg a wax waaye amunu jot wante mën ngeen leen jàngal seen bopp ci téereb tawret ci njalben ga saar juróom ñeent dingeen gis ne gannaaw mbëndu ndox ma nooyin dundoon na yeneen ñeenti téeméeri at ak juróom fukk te bi mu màggatee ba kumur mu wuy ji boroom bi ci kaw kon ci tënk nu jeexal sunu waxtaan ci yonent yàlla nooyin ak benn laaj laaj bi mooy lan moo wuutale woon nooyin ak niti jamonoom maanaam lan la nooyin def ba neex yàlla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 mooy gëm waxu yàlla nooyin gëmoon na yàlla maanaam gëmoon na li yàlla wax nooyin wóolu na aji sax ji ba déggal kàddoom su fekkee sax ne nit ñi ci des ñépp dañu ko weddi ngëmu nooyin moo taxoon ba yàlla musal ko ci jamono ju dëng ji mu dëkkoon yow mi nu déglu tey ndax gëm nga li yàlla wax dëgg-dëgg coobare yàlla ci ku nekk ci nun mooy nu gëm kàddoom ni noyin nanu denc loolu ci sunu xel wante am na leneen loo xam ne mën nanu ko gis ci nettalib nooyin muy lu gën a neex te ëpp maanaa ngëmu nooyin sax ndax xam nga loolu lu mu doon mooy teg yàlla lu tax takku teg yàlla ëpp maanaa ngëmu nooyin ndaxte su fekkoon yàlla sàmmul woon kóllëreem ngëm gi nooyin amoon ci moom du ko jariñ dara ci misaal luy xew soo wóoloo kenn te sàmmul kàddoom maanaam su fekkee ne am na sa benn xarit bu ñëw ci yow dig ne sama waay suba dinaa la indil benn saakub ceeb te nga gëm ko luy xew su ko indiwul sa yaakaar dafay tas sa yaakaar ji nga wékkoon ci sax xarit cere ñu la dara lu tax ndaxte moom deful li mu dige woon gëm nga ku takkuwul daal wante du noonu ak yàlla mbind mi nee na sunu ko ñàkkee kóllëre moom dina sax ci kóllëreem ndax mënula weddi boppam nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddug boroom bi day sax ba faw ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk waaw yàlla kuy sàmm kóllëre la ku takku la lu mu digee dina ko def ci nettalib nooyin gis nanu ci bu leer ni yàlla defe lépp li mu dige woon jàng nanu ni yàlla musale woon képp ku nekkoon ci biir gaal gi te àtte képp ku nekkoon ci biti ni mu ko dige woon te gis nanu it ni yàlla jéggale nooyin ay bàkkaaram ndax limu ko jébbal deretu mala ni mu ko woon te jàng nanu tamit ni yàlla tege woon xonam ci niir yi ngir nooyin ak nit ñépp bañ a fàtte ne yàlla ku takku la ah mbokki déglukat yi sunu fàtte lépp nag ci li jàng tey ba mu des lenn na nekk lii yàlla kuy sàmm kóllëre la mënula tebbi waxam li mu dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit yàlla ku takkula te ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk nanu ko gëm boog te nangu kàddoom ci woyef te it nanu jariñoo nettalib yonent yàlla nooyin ak mbëndu ndox ma nu roy ngëmu nooyin moom mi gëmoon kàddug yàlla te bañ a roy niti jamonoom ñi bañoon a wóolu kàddu yàlla ba alak seen bopp kon nag fii daal lanu fas yéene yam tey nu ngi leen di gërëm ci déglu bi ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dinanu gëstu ba xam ni sëti nooyin yi doon dunde te gis it fan la kàllaama yu bari yi nekk ci àddina jóge su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey ngeen bindu nu ci yoonu njub boîte postale 370 yoonu njub BP 370 Saint-Louis na yàlla barkeel te ngeen denc ci seen xel dëgg ji yàlla kuy sàmm kóllëre la te ku ko gëm sa yaakaar du tas